coordination départementale bu taxawu Sénégal di oo ki ci jiitu muy sunu leader di Khalifa Ababacar Sall bi nga xamante ni moom la ñu jël def ko sunu candidat mu jóg dem uy ji oote boobu nga xamante ni njiitum réew mi oote na ko pour ñu waxtaane ci mbirum réew mi day dem ci parenage bi parce que opposants yi ak pouvoir bi d'accorduñ ci parenage bi day dem ci également li nga xamante ni mooy ay détenus politique mooy ñoo xam ne dañ leen jàpp yóbbu leen kaso ndaxte dañoo am taxawaay boo xamante ni dañ ko am ci politique. beneen bi ñu gis ne am na ay kilifa ci politique ñoo xam ne dañ leen xañ ñu bokkoon ci élection ñu jàpp également que ne li nga xamante ni mooy constitution bi yemale mandat présidence yi ñaar.